lii la war de ma lii kañ ubbil ma man jëlagum ko. ubbilal ko jëpp. kër ab kër sëñ xaas laa dem tey mais. daaw seetaan leen en direct. waaw kéemtaan da lay waaj a def kéemtaan. kéemtaan lay waaja a def ndox la def ci bool bi teg ko ci gaz bi ndox nee na ndox la def ci bool bi teg ko ci gaz bi nee na daa am lum ci génne ñu xool nag. Okay. kenn moom. suñu mbay looy ree. man damaa waaru. maa la gën naa waaru. ndox mi lu ci ndox mi lu ci war a génn. ndox mi lu ci war a nekk. ndox mi lan moo ci war a génn. moom a jaaxal ñëpp. moom rek a xam de ñun tëw de kenn xamu ko. ndox mi de li ci génn kenn xamu ko moom rek a xam de. suy daal bi maam Cheikh kenn du moom ci réew. taal bi maam Cheikh Anta mën na la waaw waaw paan bi jël paan bay puusal paan bi kenn du moom de ndox mi li ci war a génn këccëb moo ma jaaxal ah ndox mi lu ci war a génn laa bëgg moo jaaxal ñëpp kurus gi. xaaral ma daw man taxawee de. cëy kenn du moom. kii. kenn du moom de mu ngi wër gaz bi rek. te ah. yeneen bu ñëwee ñun ñëpp koy gisandoo ma waaw. waaw. cinq minutes. ah léegi nag tey boo koy kuréel jël du ma ko laalaat li ma soxla ñëw. waaw sëñ bi gaz bi lan moo ci génn. ndox mi lañ wax xam nga tey. su ma soxlaa kii quoi damay jël numéro téléphone woote mu wuyu ma. su ma soxlaa kus kon fu mu nekk noonu ak loolu wuyu ma loolu daal. mais kus kon ngay wuyu li ma soxla moo koy dugg. Eee, ah. mooy lu baax moom. ndeysaan ndeysaan. moom la ndeysaan. dara yendu. bërëb dem ci àll. moo fi yendu laa defal lii ay ay misaal. ay kéemtaan. xam nga tubaab lu mu defee ci baati bi. Hmm. téléphone yi ñuy composé nga ne allo mu ne allo ci biir la nekkee ne looy composé la rek teg ko nag fu wóor. Hmm. ko man de barke alxuraanu karim maa gis ndox. fii bu jàppul woon ñëw ki ko jàpp rek laa a defal pour wala nit lu wóor la. Hmm. bi. fu mu toll ah laay la àddunaa ngi seetaan fi mu ne nii adduna ah man daal sëñ bi tey li ma fi indi woon mooy sëñ bi dafa ubbi sëñ bi dafa ubbi centre commercial sëñ Ablaye Diop xaas moo ubbi centre commercial bu mag fii biir Malika ma ñëwoon di xool si centre commercial bi mu ne foog mu def kéemtaan bi ci kanamu kii Babacar bi naa soxla de. ñu ngi déglu rek. kon sa de. na de. ah man de fii tey bu ma fi gisee lu fi génn moom. ma xam ni xam-xam am na. tey nga génn ko. waaw ah. mën naa la waatal génnul ah. su génnul nga bàyyi faj. te bool bi dara newu ci woon nii la meloon ñu def ci ndox bool bi ndox lañ ci defoon teg ko ci gas bi gaz baa ngi bax def na li muy def ci cruche bi ba pare sànni ko fii sëñ bi àddunaa ngi seetaan di daal yi hmm? Instagram gis nga ko mbay ñëpp a ngi xaar. ñëpp a ngi xaar. Hmm? Ah, naan na gaaw. na gaaw de la ñuy wax. techniquement. ah. teg. vraiment xam nga xam nga Pape Sala ñëw ko rek famille faj. waaw. juste da cee yem. waaw ma faj ci karamu. rek waaw waaw. tey sëñ bi. ah. am nga sant suma yàq. kii mooy sëñ bi. te dama ñëw ne Pape dama am ma sant sa yàq. ah waaw waaw loolu la wax. di faje en direct du hmm? tey rek de ko ngoonal def na ko def ko ah? Ah, yi nee nañ sëñ bi gars yi def na nii yow ah? bi daal mi bool bii la fi def bool bu mel nii bool bu mel nii te sëñ bi gars yi buñ ko gëmaatul rek nga doole dolliwaat ko bool bi daal ndox la ci def. waa États-Unis ñëpp a ngi seetaan sëñ bi ñëpp billaay barke rasulaay taal bi maam Cheikh Abda mbay gars yi nee nañ nga noppi mbay banaana lañ la tuddee léegi mbay banaana nee na nga indi fa nga jàpp woon paan be nee na nga jox ko paan Babs kaay toog nii ah, affaire a da nga koy sottiwaat ci pan bi foofu lay génne waaw keñ <laughs> xool leen fii xool leen de preuve ah sëñ am lay def xaar lii réew mi lii yéeme na ni sinap bu xawma Instagram bu ëpp ëpp doole gum ci jamono ji moo tax tey Sëriñ Sall bi moo ëpp doole TFM moo ëpp waaw taxaw leen noppi leen nag noppi leen noppi leen. dafa tàng dafa tàng. ay. woy sama lay bëj. woy sama lay bëjën. bay tey bundi. tey bundi bay tey bundi bëjën. laa ilaha illallah. bëjën ak lan. laa ilaha illallah muhammad rasulullah. sëñ bi lii nga génnee ci ndox mi. lii nga génne ci ndox mi. lii moo génn ci ndox mi. lii génn ci ndox mi. mais lii mbay Babacar ndox mi nga jàpp. bu ko laal bu ko laal bu ko laal. <laughs> waaw sëñ bi lii fu ko daal lu existe sëñ bi. sëñ bi lii mën nga ma koo dollilaat laat nii. dimbali ma ngir rasul yi. mën naa la cee defal fukki yoon. waaw dimbali ma xoolal defal ma beneen ngir yàlla ñii nii. lii nii. man képp laa bëgg. tey Ablaye Diop xaas laa leen di jox direct. laa ilaha illallah mais man xaas moo ah, ñëwal toog fii ñu defaat direct. bu leen dem de seetaan leen rek bi ah man de man ci laay jox man preuve rek man preuve daal preuve maag samay nit xaar leen ko mu ñëw rek xaar leen ko mu ñëw day def beneen parce que. xaar leen ko mu ñëw damaa bëgg ngeen gis. man barki Serigne Saliou ay yëfi gàllaaj indiwuma fi dara ay yëfi affaire Serigne dafa ubbi fii en kii nu mu centre commercial bu mag la ubbi Malika. def fa 32 places. xoola wuyu. defal fi nga def fi ndox. mbay kay baax na waaw bi taalal. <laughs> mbay taala bi tëj na tëj bi waaw. bismillaahi bi moom man moom bugguma meew bi du ma ci naan. waaw defal meew waaw nañ naan ah. eh gars yi loo soxla mu génnee fii nee na meew wala lan meew wala lan. waaw meew baax na. ubbiwaatal ndox bi ñu xoolaat ubbiwaatal ndox bi ñu xoolaat. ah jat nga ba pare waaw. meew. dañuy meew de. dañuy meew de. dañuy ñu xaar tuuti meew jën. <laughs> lii nag kenn mooy ambiance dëgg. ambiance dëgg. essentiel la. Hmm? ay bu ñu a a yëf yi foofu la la ilaha illallah. kon gars yi wala léegi. non dañoo bañ a wala dina d'accord nañu meew maa ngi xeeñ de. Hmm? meew ngi xeeñ de. Ah. day am suukar. Eh? day ah, waaw yow su ma neexee yow yow dox fii naa comme ni ñu. di ngay communiquer ak dañ naan la meew bi pare na. dama la giññaloon fay ni dara dina génn. waaw dama la giññal ci ma bàyyi fa. way sama ndey. Eh. ci laa ilaha illallah këjëf yaa bëri këjëf na de yow jinne jaa ngi nit sëñ bi lay may meew bi mbay naan yow naanal ci meew bi lu tax doo naan ci meew bi yow di nga naan day daw sama biir meew man booy xel di ma jox man moom day daw sama biir. <laughs> buy xel di ma jox may naan. jàmbaar il a day naan. ah waaw. mu kaa gëm. cëy borom gaa yi naan cëy borom xaas. cëy borom xaas. non non. ku la yëpp daal di ne la waaye soo nee soo nee jàkk taxaw kenn la yëpp. non man li ci baraade bi laa dama bëgg preuve. preuve. ku la yëpp daal di ne la. Sénégalais daa gaaw weddi. foog muy gis. man mii ci laa bokk foog muy gis mu leer. moo tax may ci émission naan bopp dumatuma wax. waaw preuve. kañ. ci borom xaas. Ah, gis nañ ñi fi waxoon de. ñëpp lañ yóbbu faar. Mhm. waaw. ñu naan de. Eh, eh, eh, des na des na. gis naa toq mais dafa xawal yolom tuuti. we kiigul ñun te meew bi kiigul mais gis naa lu weex lu tuuru moom waaye ndox la ndox ndox moo oyof. ay waay ay waay

bismillahi rahmaani rahim. xam-xam mu kii bala kaa la. barke alquran barke alquran lakk alquran yàlla rek ko man. du ma lépp la ñu fi yàlla. ndeysaan. yàlla ci yàlla. xam nga adduna moom dafay wax. jéem mu sotti rek yàlla. yàlla ko moom. kon nit ki du dara. nañ gëm loolu dégg nga. bisimilah. incha allah. <laughs> meew ma ñëw na meew maa ngi nii. la ilaha illallah. meew maa ngi nii de. mais sëñ bi affaire yu ñuul yi di génn ci meew bi nag. meew ma. meew bee far. meew bi eh waaw. la ilaha illallah. teg ndox kese. ndox kese de la teg mu doon man fi mu ne nii damaa sokke man. meew bi téere génn na fi meew génn fi. te nee meew bi kii nga la ni yow. ñëwal Julaay Soumboulou. ñu jigéen kenn yow. macha allah mais la bourgeoise. mais eh, mais sa jabar ji réew mi ko bëgg. xanaa xamoo sànq ba tey ñu koy ñu ngi koy laajte. sànq ba tey nit ñaa ngi koy laajte. sànq ba tey nit ñaa ngi koy laajte. Eh. ay madame. madame. madame sëñ bi nee nañu baal la. madame. waaw damay oh. <laughs> eh, am ah, kër gi neex na. macha allah. lii. mais meew gi nii de meew. jinne la de wóorul naan. ah meew bi de man. laa ilaaha illallaah. ay waay li ndox ndox rek. mu nekk meew mu nekk meew. ah ñengo la wala lan la nii. ñengo dafa am. loo dégg ñu tudd ñu ci yàlla ah. ñengo waaye loo gis ñu tudd ci yàlla. waaw ah. alxuraan. Hmm. xam nga tegoon naa fi carton di ci ataaya ñu wax. man leen hmm. man ëpp wallaahi ay ay alxuraan. wallaay ndeysaan moom xëy na ñàkk xamu waral lu bari rek hmm. maa farax na min ki tey wa min shay lépp ngi ci alxuraan est-ce que lépp ngi ci alxuraan ñaar am nag xam ko wala ñàkk ko cooy mais neex mu may xet neex kay bii meew ah man de meew bi day daw suma biir moo tax meew bi moom day dox sama biir ah mbay. doon naan. dinaa leen naan man na suukar saf na daf na day am suukar. am na suukar am na suukar. ah non man gañ baax man sama biir bi lay daw ma def na sëg laa ilaha illallah ah ah de du du ay question kii biir bi moom bëggul meew man du ma naan meew naturel meew moom du ma ko naan du ma ko xëddee man euh, kii laa baa kese rek sëñ bi sëñ bi daa am ñu ah mais sëñ bi lii garaaw na de ñi ah waaw dibi sax bu ma la ko waxee ngeen di dibi looy def ci dëgg gis ku le xam nga day wax tey su ma la ko waxoon mm-hmm. waa alxuraan xam waaw bu ñëwul ma bàyyi ma xam naa kay man noonu la nii ah. yi ñooy laaj dibi man leen beneen yoon. dibi <laughs> dibi la <laughs> barke sëñ Saalum ñoom ñëpp dibi lañuy laaj. xam nga amoon na fi dibi xool xoolal xoolal xoolal commentaire yi ñëpp dibi la laaj. xam nga sëñ fi dibi. <laughs> mais bàyyi tooñ tooñ baaxul. Ah, ah, waaw waaw bàyyi loolu. bàyyi ci gis nga sëñ bi duggul tooñ. man Fansam laa kooku yor man maay Fansam man maa ko. ndeysaan. xoolal dibi yi xoolal commentaire dibi dibi dibi dibi dibi rek. même na de. même man dama ko ñeme. na de. Idaali meew mi sa bët yi commencé nañoo xonk la ah nëbb la. nëbb la. mbay doon naan. Ah, ah ah ay meew jinne. mbay doon naan ci meew. ay meew jinne la wala wóorul de. ay meew. billaay ay meew mbaa du meew kii la. kii tam ay meew jinne la billaay walaay. xale yi ñu bëri dañ may laaj. Mhm. ñoo bëgg jëkkër ñoo bëgg jëkkër. i. chère dama lay sama téléphone ñi nga am ni tey loolu spécial la xam nga. tey tey tey tey c'est une ambiance la. mais ku bëgg jëkkër. ku laa ilaaha illallaah. ñoo si yow la ci ay renseignement <laughs> buñ ko bëggee suñ xaas noo def boobu. loolu ngay teg bët ñoo xamante ne ay Amérique la ñuy woote. mais ku toog ci pousse pousse ku toog ci pousse pousse ay at su ñëwee dañ ko nangu. eh waa hôpital hôpital dañ fay am malade boo xam ne da leen tënk. ah ma xoolal ñëpp ambulance ñëw jël si sëñ bi mu dem. jël hôpital bi ñëw andi ko si kër eh, mbay xanaa xamoo xoolal sëñ xaas bi ci affaire rawxaan bu wax naanal man ñemewu meew bi.

ko taxul ah lan la sax meew ko sa kese. bi de mi ngi naan moom. léegi waaw waaw loolu ay yëf la naana. waaw léegi mi ngi xëy meew. waaw naana la suukar bi laa bëgg nga foofu naana. suukar suukar. daa sax suukar gi dem. ba pare teg soxna Anta la dëgg la waaw lu tax nga ma de. te ndox la woon bravo. te ndox la woon mais lan moo tax mu sax suukar. soo soo waxee ba ma ñam ko. ma xam ne yaa fi mën. mais lii dafa dafa dafa garaaw de mais dafa sax ah, oh, sëñ bi kon kon le mais sëñ bi. man ci kii bi laay wax man ci centre commercial bi. Ah, daf maa yitteel parce que centre commercial bi yëfi jeunesse bi la. xam nga ni loolu moo ma fi ndi ndax man tey kuy jàppale réew mi rek damay bëgg di nekk sawet hmm. tey li nga def moo tax ma ñëw fi mooy centre commercial mm. bi nga ubbi ubbi ko fii ci ci sa koñ muy al Malika centre commercial bi am 32 places mm-hmm. léegi places yi centre commercial bi kañ nga ko fas yéene inauguré waaw kii centre commercial wax bu am mm-hmm. kilifa la def ma ki ñàkk sens mm-hmm. mooy kiy dund am tur dee ñu fàtt dëgg la Mm-hmm. yor la nga def loo xam ni nekkatul pour yow da pour jeunesse bi. dëgg la waaw parce que mënuñu d' accord naan nañ jàppale nit ñi nañ jàppale nit ñi. dëgg la pour a jàppale nit ñi bu dee tey bu xamee mm-hmm. ki liggéey ci. na mm-hmm. la ñëpp deful ñëpp liggéey. la bi ma xalaatee ni su ma tabaxee centre commercial def naa ci 36 places. dëgg la bokk la resto ba ca kaw. te foofu ci ay nit xaw ma nu waaw loolu moom ma yitteel man. te ci kàttanu yàlla incha allah fas naa ci ni yi ci ëpp it man maa koy changé en personne. teg fa ay nit. restaurant ba. ay nit nga fay jël ñuy liggéey mm-hmm. salle de spectacle du ay nit jël ñuy liggéey def ma ko dama ko def pour créer employé pour dimbalee ko wax nga lu ma gën a kontaan man pour man sax da nga ubbi place yi pour ku bëgg place ñëw luwe léegi kon jeunesse bi nga xam ne amuñu liggéey mm-hmm. bëgg liggéey léegi mm-hmm. nan la ñuy def ba nga jox leen ci liggéey yooyu ma lay ay carte ñëw déposé fi mu looloo ma permettre ma ni du yem ci bii fii ne maa ngi préparé benn buur soo fa ma jógee jug Thiès parce que li ma jot ci ay quarante ñu bëgg faa liggéey këcam ëpp na place yi ba ñu commencé rek leen demande yi ku ci nekk lii la kii lii la bëgg a def kii lii la bëgg a def looloo tax ñu taxawal centre commercial bi fas yéene ci dimbali nit ñi chargé ko bu gongoon li nga jël fii teg fi ñaar jël fii teg fi ñaar jël fii teg fi ñaar gardien yi ñu jël seen wërsëg ñay nettoyé ñu ngi jël seen wërsëg ña ne ca kaw ñu ngi jël seen wërsëg lii tax ñu kon ku bëgg liggéey ci ci place yi ku bëgg a liggéey centre commercial nan lay def nan lay defee demande lay jël par exemple ci ñun hmm. tey xam nga tey àdduna ku ci nekk day jaay am na ñoom dañuy jaar ci say xarit di kon bëgg na nga jàppale ko nga jël ko fa day ñu xool ban côté la parce que yemul foofu ibbi nañ fa ay créé nañ fa ay kii yoo xam ni gis nañ waa banque pour liggéey ko fa ba yenn yi ci banque laa ko fas yéene def su ko defee pour liggéey su ko def nañ lépp fi ñu war a jaar yëpp jaar nañ fi incha allah ñoom léegi ñu installé bëgg a jox ci ndaw yi ñu continuer amul numéro a woote pour demande def seen demande pour liggéey man sa demande ci sa numéro kon jeex na <laughs>